man nag coowal Adji saar ak Sonko man benn kàddu rek laa ci am muy soxna Aïda moom Serigne Saliou en tant que femme Adji Sarr doom la yaay la bàjjan la tànta la man dama fi nekk avocate pour tous les femmes képp koo xam ne femme nga rek du ma nangu lu metti tegu ci sa kaw mais du ma préciser tamit ne Ousmane Sonko lii moom la wala du moom parce que nag la ñu séq li ma dégg réew mi di ko waxtaane ñaan ñu ko séq rek ko mën a wax du keneen ku ci mën a commentaire man li ma ci wëgg a dund mooy nan dimbali ci bruit bi dañoo talut bruit bi benn bu dee kaala nañ jéem a régler kaa bi ndax kaa bu fi mës a ñëw traité nan ko man du ma ne danoo ragal dañoo tax réew mii fii Sénégal fii boo déggee ñu ne dañ fee ragal nit barke Serigne Saliou Mbacke amut xam la lañuy am ci nit ñàkk gan ñàkk guma nekk ci say yëf wala nekk ci moo man du ne fii Sénégal la amul lu ñuy ragalee nit ci àdduna fii kaa bu ne traité nañ ko fi ci àdduna mais dama ne cas bi bu tollee ci traité nanu ko traité te may nu jàmm man daal li may wax mooy ba ñu fi tàngalee dëkk ba dëkk bi tàng jër mennum soxna Aida rek a wàccoon géej gi mi ngi ci vaar yi nañ fa dem seeti ko maa wàccoon ci géej gi maa fayoon problème bi ci jamono yooyu ci kalma ci Zahir sëriñ mu taxaa mu baax mi nga xam ni kenn du moom moo ñëwoon moom nekk kilifa réew mi gën ci réew mi bëgg jàmm ci réew mi woo leen nag ni leen wax naa ndax bu waxee benn yoon lay wax du waxaat bu ne acca rek acca waaye bu ne arrête arrête moo arrêté woon mu arrêté kon yaakaar naa waxee sëñ mu taxaa kenn sañatu la nekk ci réew mi di yëngu fii nag lu fi nekk lu fi wax njagam lu bon la ñuy laam-laamee ka lawta lawtee di ko téyee di ko lawta lawte ba mën ne tiisu juugu maase maase du ma tudd benn maase tisi yu lamb yii ñu koy def mètre cent franc bi ni ñu koy laawu laawee wax ju fi ñëw ñu laawu laawee ko senegal du cof ay wax te lu ñu xeeb ay wax ñiy déglu ñoo war a am leneen lu ñuy déglu lu amul solo jërta déglu lu am solo ñu déglu ko te bàyyi gor ñi ñuy taqal ak tilimal nañ waxante dëgg Sénégal ñoo war a passé loolu man de en tant que le 8 le 8 mars 2022 en tant que femme damaa bëgg na femme yëpp def ni Marème fay Sall def ni Soxna Aïdara def ni soxna moomi kebe mooy def lanu war a def wax lanu war a wax jëf lanu war a jëf mel ni soxna Ayda moom sëñ Saaliw mii nga xam ne bu ñu demee ca sama vaar yee tey am naa fitu toog fii ci réew mi jàkkaarloog femme yépp ci li ma féete ci réew mi taxaw yëkkati sama loxo ca kaw te kenn du ma tegal baaraamu tuuma lu ma waay bañ bañ bañ bañ waxal ma sama gudd nopp yi ak sama mën a wax dem vaar gi ak sama mën a jëf gii ak sama mën a indi kub ak sama mën a wax réew mi nii lay demee mu demee nii te nangul nan ma ko mais dañuy liggéey ñoom ñoo taamu woon liggéeyu guerre yor pistolet pëm comme ni ko Ndiolé di waxee gën goon ñoom ñoo taamu woon liggéeyu goon ñoo ko taamu woon man lii laa taamu woon vaillante eh kuy liggéey ci goon dem ci goon yaa ngi nii lu manifestation xat-xat-xat di nga gàddu sa caméra bii dem dugal sa micro bi fi mu xaj xam nga lan la gis ngeen mais bu wax feebaree nopp yi koy déglu feebarunu yow yaa liggéey guerre ci guerre ci goon ci goon nga nga nga defoon sa rêve euh, jàngoo lu dul goon man ma jàng vaillante lu réew mi xat-xat ñu ñëw laaj ma ci lu ci sama xalaat du yaa ngi di danga may laaj la xew bitim réew ma la ciy wax mais ñoom dafa am lu xew bitim réew te bëgg na noo dem ñoo moom seen kii ñoo ko dund xam nañ fii nu jóge Sénégal amul guerre xam na ne amul guerre amul pistolet amul goon ñoom ñu taamu goon ñu woolee ca goon ñu dem ci goon léegi la ciy problème bi nan dem ak jàmm ñëw ak jàmm fekk fi seen njaboot ci jàmm danoo liggéey bu nu woote woon seetkat léegi ma gàddu sama bagage dem seeti bu nu ma woowoon bu nu ne woon ca geer ba seetkat daa war a dem ca geer ba man bu ma makki ne demal ma dem damay dem seeti geer ba sama liggéey la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 parce que du jabaru temps en temps jabar la soxna la